wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci njiitul sëriñ Habibu Mbacke moom Cheikh Mahmadul Fadal ak mbooleem koo xamante ni bokk nga ci daayira nooru daare ni Touba ca kanam ñi ngi ci nawet te màggalu Touba mi ngi a ñëw loolu moo tax Touba ca kanam fas yéene jógaat nag dëgmal ci mbeddi Touba yi nga xam ne foo fi jaar ay taataa lay doon ñu fas yéene taatooyo yëpp donte mënuñu ko tëliit ku fi jaar da mën a taxaw julli na ko sëñ Touba ñaane woon ca xasidaam ya màggalu Touba ci at yi ñuy dox yëpp bu ci yàlla àndee ci biir nawet lay doon loolu moo sababoon daaw bi nawet bi jeex tombeeg dëkk bi taawoon lool Touba ca kanam defoon ci liggéey yu am solo fexe woon ba mbedd yu baree bari mu lijjanti woon ko ba dem beeg dikk bi mën faa jàppandi ren bi nawet bi daataan jub si waxtaan nañ ci ay waxtaan yu yaatu jël expérience bi ñu amoon daaw dolli ci borom xam-xam yi ànd ak Touba ca kanam ingénier yeeg yooyu waxtaan ci ak autorité dëkk bi. Touba ca kanam waajal ci matériel lu am solo waaye bi borom xam-xam yi demee ci terrain bi wa euh, defi gëstu jàngat dañoo gis ne li ñu waajal nii du doy ngir la ñu soxla dana ci tuuti lool lool lool lool. faw ñu def ko lu gën a yaatu fexe ba murit yëpp képp ku am jumtuwaay bu mën a jàpp ci liggéey boobu ñu wala ci. li nga xam ne moom la borom xam-xam yi takk ne lii moom la ñu a am ngir tàmbalee ko liggéey boobu wala ngir duggee ko ci liggéey boobu. li ci njëkk mooy latérite latérite xam nañ ko mooy xeer bu xonq boobu ndax am na ci diggante yoo xam ne yooyoo fay baax liñ ciy soxla nag toll na ci 17200 mètres cubes loolu boo ko xoolee day tolloo ko 860 camions 20 mètres cubes ñu soxla ci euh, ciment luy tolloog 206 tonnes ndax danañ defar ay radier dinañ defar ay ay lu ñuy wax ay fosse de relevage ak euh, yu ni mel. ñuy wax euh, gravier noir mooy xeer bu xeer bu ñuul bi dinañ ci soxla luy tolloo 465 tonnes euh, béton fer à béton dinañ ci soxla luy tolloog 50 tonnes. danañ soxla luy tolloog 100 camions suuf yu 20 mètres cubes tuyau li ñuy wax tuyau évacuation diamètre 400 mooy tuyau yi jàllale ndox yi dañ ciy soxla luy tolloog 350 tuyaux. Euh, lu jëm ci ay pompe de relevage yu 120 mètres cubes danañ ci fàggu luy tolloog juróomi pompe euh, tiwa yi ñuy wooyee tiwa anaconda mooy tiwa yu guddi yooyu di lemu danañ ci soxla luy tollook juróomi junni euh, mètres 5000 mètres waaye bu dee ci jumtuwaay yu yu diis yi am na lu ñuy wax niveleuse machine niveleuse mooy machine yooyu nga xam ne moom mooy mooy mooy jàpp ci defaru tali yeeg la maasale ak yu ni soxla compacteur benn tamit dinañ ci soxla yeneen camion dinañ soxla lu mat bulldo ay bulldozer dinañ soxla luy tolloog kat dinañ soxla luy tolloog euh, euh, ñaari pelle à chenille ak dix pelle chargeur euh, lu mel ne tractopelle dinañ ci soxla six li ñuy wax caniveau danañ ci soxla deux mille cent mètres lunaire de caniveau quatre vingt sur quatre vingt yii mooy yi nga xam ne jàpp nañ ne boo ko Touba ca kanam amee lu baree bari ci jafe-jafe yi fi am fi mu ne ci taataa yi ak dëkk bi dem beeg dikk bi ni mu jafe danañ ko mën a lijjanti. mbooleem ku yaakaar Serigne Touba. kenn ku ci am jumtuwaay bu mën a doon. ci lii ñu soxla lii ñoo ngi la ci woo nga ñëw jàpp ci kon laaj gi fi muy tàmbalee mooy mbirum ab képp koo xam ne la nga yor jàpp nga ne sëñ Touba moom soo ca mën a jënd ci matériel benn bu mu mën a doon rek dikkal na defal leen ma ko ci Touba ca kanam dañ koy tàmbalee ci Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Moudou Moustapha Falilou Serigne Makhtar moom Serigne Moudou Moustapha Falilou Serigne Abdoulahi Silla Ecotra Touba ca kanam mi ngi koy tàllal loxo di ko ca woo Abdoulahad Ka directeur Touba matériaux di ci soñit Abdoulahad Ka maire Touba ñu ngi woo alaaji mbay Touré di woo alaaji Ndiasse Thiaw di woo alaaji Cheikh Lo Satracom moom Cheikh Abdoul Ahad di ci woo alaaji Mandiaye Jong mi nga xamante ne bii lim am lépp sëñ Touba ko moom di ci woo regroupement safari benn Touba di woo président transporteur yi Touba ci njiitul Serigne Cheikh Mbacke Lo président oto vidange yi Touba ci njiitul Serigne Bara Dieye di ci woo itam alaaji Bara Seck ca Kaolack di jàmbaar Serigne Modou Gueye transporteur Diourbel Amadou Gaye transporteur Diourbel Cheikh Diagne Gaynde Serigne Ndiang ak Serigne Bara ci autovidance yi sëriñ daam ñas sërif Ndiaye sëriñ Xabaan Saw mbakke sëriñ Bàcc Fall Touba sëriñ Sam Seen Touba sëriñ Laman Jiite ca Mboro di woo nag ñi nga xam ne ñoo yore kambi suuf yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo wax ne bu ñu àggee ci liggéey ba nañ bàyyi benn yëpp ñu tibb fi ndax fu suuf mën a baaxee rek ñëw Touba moo ca gën loolu nag ñi ci jiital alaaji ma Fall Fall sëriñ Modou Fall sëriñ Njaga Jeng sëriñ Njaase Thiaw Serigne Baye Fall jóob ñoom ñëpp ñu ngi leen cey woo ak keneen ko am kàmb ak foo ko mën a amee di tàllal loxo nag ñi nga xam ne suñu borom mën na leen gan tam wóor leen ne seen i buntu kër dañ koo pavé seen i biir kër dañ koo karle seen i mbedd ndox du fa taa defar nañ ko ba mu jekk ñooñee ñi ngi leen di woo ci mbedd di Touba tubaay ñi ngi ciy jiital njabootug alaaji Njuga Kebe ci njiitul Serigne Moustapha Kebe di ci woo alaaji Serigne Seck di ci woo itam alaaji Abdoulahi Dia di ci woo alaaji Mbaye Guèye alaaji Serigne Mbuub di ci woo itam commerçant yi Touba ci njiitul alaaji Mouhamadou Diop et frère alaaji Moussa Diouf ñu ngi ko ciy woo di ci woo itam alaaji Ibou Dafe ak mbooleem tukkulóori Touba yi te xam ne ñoom sëñ Touba mooy seen mbokk di ci woo itam Serigne Thierno Lo Dakar képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllu station di liggéey ci wàllu essence rawatina ñu kenn ku ci nekk na nga ci mën a jàppe Serigne bi nee na ña la ciy tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo am ciment baa ñu am fer baa ñu am béton dégg nañ li ñu woote ak niñ ko bëgge lu ci waay mën a joxe rek na nga daal di woote ci numéro téléphone yi ñuy bëgg joxe ñu ngi ciy soññ itam sëriñ Moustapha Fall Ndiagne ca Dakar ak rakkam sëriñ Pape Fall ak sëriñ Ismaïla Fall di ci soñ itam sëriñ Dame ñas di soññ mbooleem koo xamante ne bëgg nga lu baax kenn ku ci nekk sëriñ bi nee na na nga cof ca sa magasin andi def ko ci liggéey bi ña gas raay ba njaareem ba Touba waruñu ñoo man ñin ñi nga xamante ne mbedd Touba rek la ñuy defar defarloo kon na képp koo xam ne la Serigne Touba waxoon ne màggalu Touba suy dëgmal ka koy waajal ak ka ko waajalut duñ mën a yem ba addunay tukki ñun tàmbali na noo waajal màggalu Touba kon nag képp koo xamante ne bii ndamul Sëñ Touba sa ndam la bëgguk Sëñ Touba sa bëgg la ñi ngi lay woo fii lépp lu ci waay man def leen ko ci ci njëkkante ci acca murid te xam ne Sëñ Touba ci acca murid rek la daan fay jumaa ji moo ko taxawal bi moo ko fi andi ñi ngi ci woo itam Alaaji Masamba Jeng ak alaaji Mandiaye Guèye ak mbooleem koo xamante ni tudduñu saw tur waaye xamal nga sa bopp ne li nga yor sëñ Touba ko moom Touba ca kanam mi ngi lay taalal loxo man de commencé woon naag mm-hmm. maa ngi sant bu wér ba may ñëw ci ñoom benn machine rek la ma yàlla dénkoon ma jël ko jaayante boole sama bopp ci Touba ji kanam di ci liggéeyal Serigne Touba mm-hmm. tey ji maa ngi ci juróom-ñett ak camion lépp lu ma am nag bu Touba ca kanam wootee dinaa ko indi euh, chauffeur yi nga xamante ne bii ne ñoom laa jiite ñu féete ci sama ginnaaw maa ngi leen di woo ci liggéey bu Touba yi nga xam ne te mu ngi jëm ci wàllu defar mbedd yi te ñun suñ côté biñ ci féete mi wàllu sëkk ma di ci woo ñëpp di ci sàkku teewaay yu ñëpp képp koo xamante ne bii ne yaa ngi ci benn rek di ci xëyee ko gont maa ngi la ci woo. man maa jiite transporteur yi kon nag maa ngi woo bépp transporteur boo xam ne yaa ngi yëngu ci gros porteur ñu ngi lay woo ci liggéey Touba bii nuy woote te te maa ngi sàkkoot ci bépp transporteur bu fi nekk warunoo des gannaaw ci liggéey Touba bi ci kanam kon nag maa ngi ci woo transporteur bépp ku yor ci ku yëngu ci kamiyon rek ñu ngi la ci woo. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum autovidage yi te ma nekk seen kanam jiite leen maa ngi leen woo ci liggéey bi nga xam ne waa Touba ci kanam ñi ngi koy woote pour nañ woo ñu ci ñëw leen ñu ànd liggéeyal Serigne Touba jariñu maa ngi ci woo képp koo xam ne yaa ngi ci diggante Mbacke ak Touba di yëngu ci wàllum autovidage ñoo ngi la cay woo di ci woo Ibou Sow mi nga xam ne moo jiitee jiite association vidaceur du Sénégal bépp maa ngi ko ci woo di ci woo la DC de ONAS di ci woo képp koo xam ne nii rek yaa ngi yëngu ci secteur vidage euh, di amaan mbégte mu rëy di wootewaat ndax mu du wàcc te du sonn tim kon yow fa sééne ndax fañ jëm ki nga xam ne moom lañu tuddoo képp ko xam ne yaa tuddoo moom war a tëgg sax laxasaay ndax ma jóge ba tey mi takk laxasaayam gi ngir lu xet bi bindee xet di doomu aadama yi kon bi ñu ko gisee war nañoo góorgóorlu nekk ci li nga ne moom la bëggoon tey sori la mu tere woon a bëggam dafa mel dëkk bi dar la gën ko ci ëpp muy Touba ndax Touba ci boobu ma njëkk bëgg sëriñ bi sëriñ bi bëgg Touba euh, muy lu ko sama borom cëralee kon bu ñu bàyyee ci kaw suuf si ñu nekkee fi war nañoo góorgóorlu kenn ku ci sa kéemtalaay kattan pour def fi loo mën ak loo mënut ko xam ci tàmbali bu njëkk ba rek Touba fu waay war a taxaw rek war nga mën taxaw julli ndax bayit yooyu ñu waxoon léegi rek waccal bu yuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakun sajida waaye amaana fi nga xam maanaam waje bu bi yebasi man yakun sajida kon maa ngi woo ñëpp ci loolu tàmbali sama jëm bopp ak ñu bokk sëñ bi ñëpp rek ak fu waay nekk tàmbali ko sëñ Muntaxa mi nga xam mooy mooy mooy borom yëf yi te mooy jëwriñ xam mooy jëwriñam njawar sëñ Tuubaa yëpp rek ku li mu da nga jum bu dëkk sëñ Tuubaa yëpp rek ñu ko siyaas sëñ Tuubaa yi ak ñu ngi ñëpp rek bawuñ kenn ndax kaay ñu liggéey sëñ Tuubaa moom jëmul kenn war nañoo fexe ba dëkk bi ñu ko borom bëggee mel na ni te ñu teg suñu jom di ci góorgóorlu su nee suñ tuwi la ñuy liggéey suñu bopp la ñuy liggéeyal ndax suñu bopp la ñuy ñoo a gor nañu def ko ay tëri ñaari ñaari yoon yeneen yeneen mbedd ndax yàlla nekk Dubai nekk France nekk Amérique lépp yàlla moo ko jox ndax doomu aadama rek moom kon bu ñu jëmal suñu bopp dara doomu aadama day rëbët te yàkk itam ndax yàlla ci boppam foo ndab loo ko tàll mu digal la ko te Sëñ Tuubaa dem na ba tàllal nda yàlla ndabam yàlla diwoo ndab loolu ndab loolee ci boppam kon ñun li amu ci suñu suñu suñu yaafuse waaye Sëñ Tuubaa loolu ñaan yàlla ñaan na ko yàlla kon ñuy ñaan ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ci te góorgóorlu ci te tàmbali te bañ a te bañ a te bañ a xaar kenn nag liggéey bi Tuubaa moom nuñ nuñ bàyyi xel ne kenn nuñ ko defal ñoo ko defal suñu bopp waaye may soññi sama bokk Baay Faal yi ndax ñoom kat ñooy ñagu sëriñ bi kon maa ngi tàmbali ci suñu sax jëm mi nga xam ne mooy euh, xalifa général Baay Faal waaye di ko jaar ci jëwriñam yi nga xam ne ñoo fi nekkal ci ay doomam muy sëñ Fallou Fall mu sëñ Modou Mbar ñoom ñi xam ne ñoom naka jekk ñi liggéey bi ak njaboot Cheikh Ibra gépp bu ñu kër Cheikh Ibra fukki bu ñu kër Cheikh Ibra benn yëpp ñoom kenn ku ne gis ci yoonu seen taxawaay Tuubaa ci liggéey bi liggéey bii liggéey bi daal bu ñu bu ñu ko tàmbalee balaa mag gi yéen na na foo rek war nga xam ne bu ñëw ci mbedd yu rek waaye dañuy mbedd yi jaam fa te loolu buñ ko buñ ko songee dañ ko daane. ndax mu ñëw kon maa maa ngi soññ sama bopp di ñëpp rek bu kenn des dañ góorgóorlu baax rek te xam ne kuy liggéey Sëriñ Tuubaa boo defee loo man mu defal loo mënut boo defee loo mën mu defal loo jomm li li ci gën a gaaw na ci liggéey bi laa leen wax na ken kon tàmbali sa bunt kër na set sëkku bu ko ñëpp defee da baax waaw alal alal lañ laaj oto doole xaalis na ko kenn ko indi ñu jëfoo ko Sëriñ waaye kenn kon tàmbali sa bunt kër sama bunt kër la ko wër bu mu taa keneen ku buñ ko doon taal te ñu dindi bant yi nekk mbedd yi pënu yi nekk ci mbedd yi nañ ko dindi xool-xool yooyu ko gas ab rigol mu génn ci mbedd yi nga toj ci ko mbedd yooyu ñëpp ko bokk ku waaye am na nag te xam ne suñu tuwaa la ko jox rek ñëwal ku suñ nga xam ne moom la suñu tuwaa jox da nga yor suñu tuwaa jox la ko toogal ñoon ne suñu tuwaa bëgg dañuy am kenn ko jàpp na suñu tuwaa te wóor na lii képp koo xam ne jëf nga ci benn suñu tuwaa dana la fay fukk moom te loolu yàgg sax waaye nañ ko tàmbalee suñu bopp kenn ko ne tàmbalee si buñu kër la fa nekk nga dindi ko mu si wicc mbedd mu sës ci yow boo ko mënee boo dee nekk koo xam ne yaa ko xaw ëpp dool doole ci saayir jàppale ko ci mooy la mu doon camion su nga jënd ko ci tasaare ko fa loolu bu ñëpp defee léegi tey yëfi dëkk bi neex yomb naa liggéey lool su ma fekkoon maa ko mën sama jëm bopp tey ji man maa ko defee lépp sama bopp su ma yàlla mayoon doole doole yi xam moo la mayoon moo la moom la mayoon ñëpp doole ci àdduna léegi bil gén mi yor bil gén mi ñe moo ëpp àll ci àdduna su ma ko joxoon bakki siñ tuwaa tuwaa tuwaa mbeddi urus lay doon dëkk bépp kenn dootu jënd dara kenn dootu kenn dootu joxe dépense kenn dootu euh, fay ndox kenn du fay courant kenn def dara nañ génnee lekk ci armoire yi bala ñu dugg ci armée yi nañ génne lekk armoire yi bala ñu dugg ci armée yi lu nekk ci kaw suuf Sëñ Tuubaa si liggéeyul yàlla dara ba dugg ci biir suuf da nga am gàcc te ku dugg suuf da nga yaakaar Sëñ Tuubaa xetal la fa te ku ku ku koo xam ne defoo la yàlla dara ci kaw suufam si bu dugg ci biir suuf si doo am la nga bëgg kon nañ gër góorgóorlu suuf si waay si buñ duggee ci biiram mu seere ñëw ñu xam ne def nañ ci nangam ndax mu rek suñu bëggoon kon maa ngi yemal sama kàddu foofu tey soñ ñëpp na ñëpp ñëw boobuñ kenn yaa àll bari yaa àll bari mu jiw lu bari bari sax xëy ñu ngi ciy soññi Cheikh Amar mu Serigne Saliou ak mbooleem koo xam ne yaa ngi nekk ci TSE di fa liggéey di ci soññ itam bu baax Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma ak taxawaayam ci dëkk bi di ci soññi Serigne Abdoulahi Tage mu Serigne Salihu ak soxna Momi Kebe soxnaam di ci soññi mbooleem koo xamante ni bii rek liggéeyal Serigne Touba ñor na la ci dëkk bi kon mbokk yi bis baa ngi noonu juróom-ñetti fan lay doon ci weeru août di bis bi nga xam ne ci lañ fas yéene jaayante liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba maase la mbedd yëpp ba ab taataa duutu fi am fu ñuy teggi duuti fi ne ni ko sëriñ bi waxee nag ñi nga xam ne ñooy gas ay foos ci mbedd mi difa fa samp ay pono di def ay doj wala dafa sar sa xeer di ko fa bàyyi te tabax ba kenn xamut kañ lay àgg sëriñ bi nee nañ ko dimbale ci loolu ndax mbedd yi kat bu ñu ko dee def ay 100 mètres ak i 60 ak i 30 bëgg yoon wu yaatu ba ku jëm si ci jumaa ji man fay agsi te kon ne xam ne ne màggalu Tuubaa quartier bu nekk la nit di bàyyi ko te ñëpp bala ñoo am jàmm dañoo ñëw ci eh, jumaa ji kon nag buñ sañoon fu waay mën a jóge boo jëm see ci jumaa ji dara du la dog te loolu moo yéenee Tuubaa ca mu séntu woon ci ko ci kawe sama njort lu ñu bëgg ci dëkk bi da ngeen ko da ngeen toog bu mën koo defaral seen bopp dëkk bi yëpp man foofu laa ko àggal woon keroog bañ bañ ba ma leen gisee ba keroog bañ jëkkee wax rek foofu laa ko yóbbu woon kon dara du ma bett ci lii ngeen def waaye nag teewul nag rëy na ci man ndax man yitte moom yitte moom dama ko la wala dara te yitte rek la yitte man yëmalu ma ko daal te yitte rek la lu sotti rek gannaaw gannaaw gannaaw dogul sa borom yitte ko sottal yitte jii nag ma gis ci yéen moom wax dëgg yàlla yitte ko mënut a kon ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.